maa lay fay baax euh, di sant yàlla julli si bi di gërëm way julli bu baax baax ñu nuyu Soda Ndeye Aïssa di ziar baax Sénégal yëpp di nuyu monde entier ñu sama xarit yi nga fekk ma toog ñoom suñu bàkkee ñëpp waaw maa ngi ziar baax di nuyu yëpp. li nga xamante ne mooy sa combat armé ndax gis nañ préparation bi nga préparé démb ndax nga waajee. waaw ah, wàccaa nañ ko wàccaa bi sëree entraîné nañ bu baax. waaw parce que xam nañ ne làmb ji fu ñu mën a yóbbu ànd suñu mbokk dem liggéey ñëw xam ne bu ñu ko jàppee mu jeex. naka science nga def ci combat non science yi nag bëriwul quoi parce que làmb moom du de science yu bëri da ngay xam ne entraîneur lu baax rek mais ajuwu science yu ay coach lañ ñuy entraîneur lu baax loolu day xam nañ ne teg nañ ay coono suñu bopp daal. ñu gis ne combat dafa bëri woon tension ci communiqué dafa bëri ndax gis nañ seen dernier jàkkaaroo da a wax ba xaw a laalante ay dënn. waaw ah, man moom ku ma xam ku ne noonu ne nan laay doxee kam ma dem am wala ma dem ñàkk mais damay communiquer làmb su ma si war wax dama siy wax dama koy jaay su subaa ma dëggal sama bopp yàlla mooy may ndam. Mhm. dañuy def li ñu war def am yaakaar ñëw taxaw dëggal suñu bopp. Mhm. li ñu jàng ñu tari ko quoi. Mhm. nga ñëw arène nationale yëngal arène nationale ndax ku ne xam ne démb grand combat dafa bari c'est grand combat loolu mais teew ñu ci bëri dañ doon xaar seen combat yow waaw c'est normal parce que xas loo dafa bari mu ne dama ko xeeb ma ne ko man tamit dama la xeeb ñu ñaar ñëpp ñu xeebante xam moom tamit muy xalaat ak fi mu jaar si làmb yëpp yaakaar ne ndigal waru ko mën a tenir ak barki dem combat bi mu jógee moom mbéy guy gis ni mu ni mu méttee ak ni mu yàggee man ma xam li ma xam rek xam ne man dama mbéy guy gi waxoon naa ko yàgg mbéy guy yëpp benn tàkkusaan mën naa daan mais xëy na bi ma koy wax ko woon quoi. man xam naa man man gëmoon naa loolu quoi. ndax moo tax euh, tardé ci làmb moo tax mu jël la mais yéen waaw xam nga loolu waxi xalaat la ndax Alioune moom lépp maa ko ëpp maa ko ëpp lépp làmb xëy na su koy wax damaa xamul rek dama dama ko xam baa wax naa ko dama ko yàgg seetaan yàgg ko xam xëy na moom na xamuma woon xam bi mooy ko daf la jiitu ci làmb wala. waaw ñoo ñoo jiitlante si làmb mais dama ko yàgg suivre parce que dafa nekkoon xale bu xew yàgg biree quoi ma yàgg bëgg a bëree moom nag wax dëgg yàlla moo tax maa ngi koy masaw baax di ko encouragé. ñu ñëw ci biir combat bi arbitre sifflé euh, sa diggante ak Armé ñu ngeen léew toolu yàgg biir cinq minutes après ngeen dem noppi ñëwaat ah, maa ngi dox si kaw muy arrière tamit du ma azaaloo sama combat parce que sama combat non non non soo xoolee premier cinq minutes yëpp mm-hmm. ma teg jëm si kanam mu teggi jëm mm-hmm. ba jël say avertissement mm-hmm. mais cinq minutes dafa may bett parce que tàmm ma après nag bi ma bi mu ñëwaatee xam ne temps bi dafa naa jeex ma askile combat bi dox mhm. a bëriwaat da nga ñëw rek accéléré yow xaaroo dara ah, lan lan nga doon parce que dama taxaw tamit laa ma jeex ay avertissement daan. boo ko mënee nga xam ne yaa ko mën na koy jàpp nga daan ma ne mhm. acca mhm. waaw est-ce que léegi li nga communiqué ci combat bi moo bari moo tax nga yaakaar ne tey euh, lamb ji su jeexee par avertissement yow sa gàcce lay doon. non man méta parce que conseil bu bari wax teel teel ma tey gis na kii indiwul dara quoi indiwul dara indi argument ko waxuma indiwul doole quoi indiwul argument bi ma daan. parce que mba da ngay argument benn nga ne dama koy duma wala dama koy song mais bu dee yow ki nga bëgg a bëree heure bu teggee pas wuti la nga teggi parti arrière ñu bëgg a bëree noonu su làmb jeexoon noonu moom ndamam la quoi sama defet la parce que man maa ko dëkk maa ko laaj kon ma pour man maa woon a bëri maa a daan waaw te maa moom laa wax maa coow maa wax ba mu taxaw ma signature maa wax ba combat bi neex am coow maa wax ba daan maa maa ko jël daan ko lépp maa ko def ko ndax moom newoon na la coow lu bari wax ju bari moo mu jël la mais sa yoon adversaire sànq maa ngi la koy wax ñu ñëw bi ci biir bëre bi euh, gis nañ bi nga mi temps ñëwaat da nga ñëw rek daal di cokkaas waaw parce que parce que su làmb ji jeexoon avertissement gàccal defal la si man mhm. man loolu laa gëm quoi. parce mhm. que soo xoolee làmb jafe làmb yi am yëpp làmb coow la ndax Jos du moroom di si njaago si ay dayoo si làmb. Mhm. guy gi du moroom Ada Fass mais coow leen boo rek. làmb na ku si génn coow dara desatu fa quoi. noo bëree doole ëpp ko doole rek jàpp daan. mais mais doole est-ce que maa ko ëpp doole parce que ma koy bal noonu su ma ko ba ku xam làmb quoi balee mu tëdd nga xam ne doole la quoi. man wuruma bëri ñooñu quoi xëy na ni mu demee woon la rek ma jóge si ay wës jàmbaar daanu mm-hmm. moo tax may taxaw ñaari alma ndigal sax di insister ma xam mm-hmm. ko mm-hmm. na dëggal boppam et eh, ba ñu ci demi finale bi ñu gis nga nga xëcc ko bal ko mel ne doon jaay doole imposé ko ne ko maa doole gone yi ma gis nii maa leen ëpp doole ku jàpp dama lay jaay doole daal la. Mhm. waaw mhm. ñoom ñëpp. mais bëgg a jàppante moom yëngu na armée a doole. non entraîné na moom dëgg yàlla entraîné na bay bëgg a dee mais bokkul quoi. Mhm. te dama ko xañ jàpp xam nga armée jàpp te armée fooram jàpp la. dama ko jàpp ngeen moom xañ ko jàpp. mu dóor ma ñaari ko ma si gi ma ko dóoree dafa bàyyi mu def jox ma li ma bëgg ma daan ko. waaw est-ce foofu ci combat bi. mystique parce ah. ñu ngi naan armée jàppul combat bi sawaru ci nangam nangam. ay alma sawar na de alma ma dégg dara isa man kay maa ngi doon ko ndax maa ñëw ne tekk chaque instant maa ma sigil xool maa pour moom dama ko ragal quoi te xamul ne démb andi sariya dama andi diine. di doy sax du tooñ waaye su abi suuf lee moom doon wax na sa delluwaat. waaw sama sëriñ sëñ Mbacke Fall moom ma jox ay bagages. ne ma daal li ma lay tere bul tooñ bul saaga. Uh-huh. waaw moo tax démb moom lam damaa ñëw fair play uh-huh. di kaf di ree uh-huh. jaxaar abi suuf la lu ma wax ma ne ko bàyyi heure bi jot rek <laughs> damay obligé def naa li ma war a def. Uh-huh. Mm-hmm. kon nga bëri waaw bari saree laa bëri uh-huh. mm-hmm. uh, daan ki nga xamante ne mooy armée bu benn barang mbooloo ndax pour l'instant wax dëgg yàlla dañ koy félicité war baax di ko encouragé. Mm-hmm. ndax xale la uh, bi mu duggee ci làmb tamit yàggulaay marqué na empreinte am nga daan ko ama nga daanee armée après nga cugg lan parce que dem nañ see bëri ay combat. xam nga samay samay ñi ma doon àndal entraînement ñëpp daan ma des. man gàkku ñu doon ànd ak bébé ama ak doomu Kajoor te ñoo doon ànd ñoom ñett ne bu ñu daanee sama xel dal na si ne kon ñu fi ñu doon entraîné ñoo fa doon entraîné ñoom daan nañ amoon naa yàqin ne damay daan Adama man kay mu gaaw mu yéex daan daan gi moom wóoroon na ma liggéey naa ko si combat bi quoi <laughs> combat dafa taxaw rek ma dem contact yi nekkuma sax di négocier dama entraîné ba jeex mhm. bu ma ku ma xooloon démb xam ne poids bi ma naan jël trop mhm. waaw ngir xam ne su ma ko jàppee rek mhm. parce que bëri baa ngi fi quoi mhm. léegi ñàkk contact moo fi nekk rek muy nelaw waaye boo contactee affaire yi day yeewaat te des na sax incha allah si mooy dàq di ko masaw di di ko ñaar yàlla defee di yem fi parce que wax dëgg yàlla yéenewuñ ko quoi ndax nit ku baax la tamit ñoo bokk seen saal yo maagi moom xam muy ku baax tamit wax dëgg yàlla ba waa si soo bi soo déggee communication sax instant day wax ne ay jafe-jafe xam nga si la nekk yaayam gaañu et cetera yu bari na quoi moo tax ma xaw ko ñëwantal ko di ko ñaanal rek bu dul géej waaye rek yàlla ko yàlla may ndam. non non non loolu xalaatuma ko wax naa ko ne wax ah, laa gaañ bëgguma laa daan rek laa bëgg te daan naa ko te gaañu ma ko defuma ko dara loolu maa ngi si sant yàlla bu baax te ñaanaloon naa ko nag dama ñaan yàlla bu ma ko gaañ mm-hmm. yàlla bu ma gaañ yàlla naa ko daan rek mm-hmm. te tey daan gi ma ko daan yàlla ba ko dara toppee mm-hmm. yàlla daf doon ak ubbeekoom sax nag waaw yàlla na fi joxe ubbeeku ba lépp ubbeeku yàlla xam na ko yéene naa ko trop mm-hmm. te am naa mm-hmm. am na solo macha allah ñu dalal ko moom ndigal ndax ku ne xam ne ne démb doon na bëreek armée bu benn baraak mbooloo mu daan a jël bu rëy à ma manière ay ci ndigal euh, nga daan armée ndax yaa ngi doon wax que ni boo jógee ci armée général Malika ngay am parce ma waxoon wax naa ko ku fi ñëw loolu laa lay wax li ko commencé ma daan yeewoo fa waaw juddoo fa sax. loolu moom bu nee na góoroo góor Malika yëmbal maa fa mën. daan armée tax wala. ma fay xam soo passé sëñ naa jëm na rek góoroo góor maa mën Malika yëmbal benn baraak jàpp buun puut ñooñu ñëpp foofu ay aliya bi maa ngi seen patron maa ngi seen roi des arènes te comme li ma wax ne comme si naqari jël avance bi. ndax général Malika lañ jàpp ne moo ëpp doole te xam ne maa ko mën. koo xam yow dëgg la bëree ko ba nga xam ne yaa ko yàlla man nit armée bi avant ñoo laa leen maa ko feeñu fa non yàlla moom moo fi ne. Ah. buñ si waxee waxu yàlla lay compliqué kon kenn mënul dara kenn deful dara. Mhm. yàlla kon moom lépp moom la mm-hmm. mais loolu ma ko teg ne ne mm-hmm. saay mm-hmm. mën dafa am mën a xool xam naa ne maa leen ndax général Malika moo fa ëpp doole moom daanaka te xam naa ne maa ko mën <laughs> wala te mu andi armée démb mu andi mu daanal ma ko mu andi armée ma daan armée kon léegi lu mu ñëw ma yàlla ma koy moo gën a neex daan dañ ko dama ko xam bi bi fils de Balla Sénégal yëpp ne ko fils de Balla kii xam nii nga koy daanee def def ko lii ak lii am lu muy bañ mbër la am na doole macha allah mais daa am lu bañ te loolu laa koy def waaw. mais est-ce ah, moo xam moo xam moo gën a xew de bu dee simple bi moo ma gën a xew mais bu dee arène bii Zena kan moo koy jël Zena daa mën a am combat c'est que loolu dañ si may ñu si Zena bu dee simple bi moo ko téye mais bëre bii ñu ne nii. bii di am signature contra yee ma la ñu gën a soxla lii xew si làmb yooyu maa ko ko dàq mm-hmm. maa ko dàq signature maa ko gën a ma neexal làmb kon ana eh, yebal ah, non bokkuñ non non làmb simple lañ mën a neexal ma bëre dóor bi ñoom duñ si da yaa si bi duñ soble mm-hmm. sa waay mooy xool rek maa ngi koy ma ko sax di ko ni nii bu bëggee na jël bu bëggul na puus na le jàll ba caaka njaay man damay am combat te combat baax laay am ni nga ba armée jël non armée ma pour mu jël ma dama ko signé avant maa jël combat bi ko na ko demi final final laa fa am maa ngi dégg ñu tudd ay booyu mbojo mbojo naan diwa nga fa ak diwa nga fa mbojo mbojo yooyu nag ku si dugg sax man non jóg doomam si yoo xale la si yoon la nekk. ay mbokkam dofuñ dof dof luñ xam nañ fi ñu koy jaarale. dañ mm-hmm. ko jox néew yi mu ko ne daan rek man booy mesure ma lay noq daal. ba ne la ñeneen ñu Diop da ma daan ñëpp si moom. Malika booy ma nekk baax Malika maa fa du UGC booy Malika champion la mais nag wax dëgg yàlla nag man du daan armée tourné jël seen jël ay xale. bokkuñ quoi ñu bu dee kase bokkuñ kase yi niveau yi bokkul lamb yi bokkul mm-hmm. champion la nag ko ku am doole la macha allah ku mën a bëre la mais ko quoi mm-hmm. niveau yi ñoo bokkul ba ñu ma bëre ñoom nag ndax lamb kenn mënul kenn yàlla moo ñuy dimbali rek mais Malika góor gu fa taxaw maa la man du dëgg jàmm moom moom kay négocier rek waaye dootu dëgg jàmm daa ngeen ba armée dugal ko fu mu xam andi ko ñëw isaat baag rassam yi sëq ma jàpp armée du ma daan dootu dëgg jàmm général Malika wallaay asim te bu yaakaar ne su avancé mu ñëwee dama koy maye wala ma delloo ko day nax boppam waaye Zé tontu la une heure. moom moom na tontu man dama ay tontonte man néew dàgg sante moom dama bëgg fekkee dafa pare. Mhm. loolu promoteur nit ñi dégg. Mhm. bu parewul nag na pousse jàll man nekk mu amatuma temps bu may xaar mhm. ndax su ma soñoon bii Balla Gaye bi dama siy bëre quoi pare naa. pour bëre si le 21 bii xale bu pare rek wala say mbokk pare nañ jël. général bu Malick ku ñëw. ay ci am allah di leen fàttali ba tey ñu ngi toog ak ndigal ndax ku ne xam ne démb doon na bëri arène nationale moom ak armée bu benn barak mu daan armée jël bu rëy ñu ngi koy waat bu baax a baax di euh, daan nga armée laaj nga fi bu mag gis nañ tamit ki nga xam ne mooy papa booy jinne doon na bëri moom ak tarabaxa noonu gisee papa booy jinne defet yi mu comme ni ko ñëpp gisee papa am moom mbirum yàlla la yàlla des moom ñu ne papa ay mbiram xam dañ koy ñaar yàlla daal mm-hmm. yàlla na li si moom waaw métti na na moom mais nag kenn xamul si wax ndax moom ñëpp nangu nañ mën naa bëre day te xam na xam combat bi xam naa dañu say coono mais da ngay ñëw laal ko mu daanu kenn koy daanam. mais lan moo ah, xam dama moom sax xamu ko dafa jote day ah. fen day fen ma jël combat boobu day duul yàlla moo ko xañ ndam sëriñ boobu def dara day fen eh. mais sëriñ bi li ñu wax bi ñu koy confirmer de. sëriñ boobu na man boobam confirmer ko dara fekk na si jafe-jafe ngay wax day wax rek daanu fi kenn yàlla may ndam wallaahi day wallaahi ñaari combat ñaata mbër fi daan ñaari combat Almi daanu quatre combat nii ñu tegal xaaraatuñ sëriñ dañuy wax rek léegi da ngay bëre bu bëgg nekk di détail yooyu quoi mais dañuy wax rek yàllaa ko teg ay jafe-jafe daal te yàllaa ko mën a teggi waaw mais ñiy wax yëpp kenn du si moom wallaahi du kenn yàlla la. waaw bu ne na xam nga problème mu suwaa la bëre problème bëgg-bëgg la du caagi ne ku si duggee da ngaa bëgg xaalis wala dara daa am yoon yoo bëgg bëre nga bëgg làmb te xam tamit làmb tax ñëpp xam ko nga bëgg am ay defet ba tax nga bàyyi làmb loolu du fay moom a da ngay daan a na daal waaye nag comme magum jëm la mun ma kaa jiit si ay bëgg-bëggam na ko bàyyi lii wala defal lii li ko dal da jëmul kenn ah di dundee yaakaar te muy daj donc coono yi muy daj la daj ñun dem di yàlla ñu sutural kon du daa yaafus wala dafa ñàkk jom wala dafa ñàkk fayda yàlla ko teg ay nattu rek te yàlla ko yàlla tegin. Mm. Mm. muy démb alante ngeen yat bi de gàkku day ñëw na. waaw moom la ma wax dama ñun ñoo ko sonn si combat si nag mm-hmm. da ngaa fàtte sa combat mais démb gisoo démb ni bi mu daanee sama xol mm-hmm. daan giri daan mm-hmm. dama xam ne mas des ma ne bi nag moom da koy lijjanti quoi waaw du métti métti ma koy jënd non yëpp bu ñu ñëwee kay def nga des si ñu lay xaar xaw <laughs> solo macha allah ci kontaan nañ ndax ku ne xam ne nag temps yi moom yaa xam na loolu du cas ah, loolu fàtt naa ko sax yàlla te man mën li bëgg du pour ay ah, bi la woon rek waaw parce que am na tur waaw xam nga tamit mënoo jugee si combat amaat armé chance la quoi parce que am na tur wax dëgg yàlla te mbëru mbëru gox la ndax benn baraag dañ ko bëgg yaakaar ko non looloo taxoon ma jël ko quoi mais mm-hmm. maa ngi koy basoo daal. ñoo mm-hmm. mm-hmm. gisee lamb ji dem wax dëgg yàlla xanaa li si nekk mooy suñu jafe yi am muy mel guy gi ak papa ju nekk bu si mais nag yàlla mooy dogalee noonu ko di leen masawu bu baax. merci beaucoup kontaan. jaajëf Tawfekh Taysir naa ñëpp ziar ñëpp. di gërëm papa Diaw bu baax a baax di gërëm ñi ma jàppale yëpp Babacar Ndiaye mu seen fay sëñ Abdallah Diouf gaa yëpp daal maa leen bëgg ñoom kun Baye Faali sëñ Kasama Alxuraan borom Touba sëñ Ndiaye Sow ak yëpp maa leen si jaay ko di naa ñëpp daal mbay loo mi maa ngi koy sant bu baax xam nga jàpp na si mooy bu baax a baax di gërëm sëñ Ibrahima bu baax sa Fatick hmm. moom ndigal bi tudd di Balla Gaye ndax ku ne xam ne démb doon na bëre ki nga xamante ne mooy Armé benn baraak mais Armé ñu koy encouragé bu baax a baax di ko wax làmb noonu la ku wu rek doo daanu des fois yàlla day ñëw ak ay affaire am mais doo comprendre mais na ci nekkaat rek armée kenn du ko wax moom xam na ni muy doxalee bu baax a baax ñu ngi koy encouragé bu baax a baax a a ndax li may faral di wax rek mënoo tudd benn baraak te boole woo ci armée muy ndaanaan di champion di jàmbaar ci wàllu bi nekk muy wàllu làmb ñu ngi koy encouragé bu baax di félicité ki nga xamante ne mooy ndigal ndax gis nañ combat yi démb combat yëpp a neex macha allah Aïcha laa ci àndaloon moo nekk ci caméra bi saa su nekk rek ayaa ngeen ciy àndal moo ne ci micro bi ñu ko jaajëfal ñëpp ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission spéciale làmb jërë ngeen